Salut les amis de Baba Show et les Sport TV. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci de vous des likes, merci de vous des abonnés. Merci également Gaël de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Inbox sénégalais, fait folle maintenant 14 régions du Sénégal. Roukhoukha de Gorgora de Ninglen de Gadjefol. Nous également au Tchèle l'hôpital et sécurité du février. Nous sommes en Foguesen Bok Meberegam. Nous sommes en Kasso Ingan aussi. Erreur judiciaire. Guidon Guinel de Fumon Foyou. Nous sommes en Guinel Feu. De l'Oalen Sénégal. Nous sommes Monsieur Kasso Ingan. Nous sommes en Kasso Ingan. Nous sommes en Kasso Ingan. On avance ensemble dans la magie de Baba Show et les Sportivi l'actualité en contenu actualité ñu fas yéene qui kii donc duel entre Carlo Ancelotti et Pep Guardiola pour Puntos ou également ci Ronaldo mi City, si de vie aussi qui dit euh, donc Thomas plutôt Jürgen Klopp mi daal di wax qui ki nga donc traite Alexander Arnold pendant ce temps Matteo Guendouzi membre daal fossel qui a nga donc euh, lii la naissance de sa fille Mom ak soxnam euh, si nga xamné ne gars dañu euh, euh, nga actuellement il est un peu en froid avec son entraîneur Igor Tudor Valverde Mom nendal il veut comme son numéro 15 apporter le 15e trophée de Ligue des Champions au Real Madrid ngeen gis apport la Kinsey Lolda Ladadi, la daal di sax si nga Valverde le joueur également uruguayen pendant ce temps les joueurs les mieux payés du côté des États-Unis par an Lionel Messi mon ci kaw comme 12 12 millions d'euros topp ci ki nga xam ne donc euh, kii di euh, Busquets ak Insigne Lorenzo Insigne Shaqiri bokk ci euh, Forcero Herrera Driussi Bentancur également ñoo fa nekk Cristiano Ronaldo nee na gars à partir de 22h man kenn du ma woo ku ma war a ngay sonal sa bopp ndax heure boobu damay noppal sama xel damay noppal sama esprit même sama njaboot laay foowal ay loolu j'aime ma voilà jouer avec ma famille mais 22h moom kenn dootuma jot parce que damay tëdd loolu daal la wax ci par rapport hygiène de vie pendant ce hier on a vu que ki nga xam mooy donc Xavi daan nay jox li nga xam mooy donc temps de jeu à Vitor Roque quelques temps de jeu Vitor Roque bi nga xam ne agent mi ngi teg pression ne moom daal ah jaay rek jaay wala mu jox ko temps de jeu quoi mais ay abal moom nekku ci benn yoon fi ne nag loolu commencé une tension diggante Xavi et le joueur joueurs. Et comme je l'ai dit encore, le FC Barcelone voudrait, selon également les médias espagnols, il y notamment et Chiringuito et tout, se débarrasser de Javier Koral Moy. Il y si commission comité exécutif bu Barça daal ne nañ ànd nañu ak Juan Laporta te waru woon décision ne day bàyyi Xavi mu di toog ndax Xavi est un entraîneur indésirable jàpp nañu daal du moom mooy progressé loo li nga xam ne équipe bi dit Barcelone étant donné également qu'actuellement, dans le jour de bëri il y une li la gestion et aussi des nañ jeunes et tout de moo leen di daal pendant ce temps également lui wax l'entraîneur c'est l'entraîneur de la Juve C'est sûr et certain que du côté de la Juve, c'est sûr, sûr, et certain. Donc maintenant, ce sera euh, imminente, madame faire saison, mais ce qui est sûr également et confirmé même par Fabrizio Romano, moi, l'entraîneur de la Juve actuellement ne sera pas la saison prochaine, qui daal di Thiago Motta moo fa gën a pendant ce temps il y a un club si ki qui en ne donc Trent Alexander Arnold nee na ba may soog a y a euh, yaay Trent Arnold daal nee na dafa tiitoon ndax da doon bañ ma joué le doomam ndax dafa déggoon ne ba fa Brendan Rodgers jógee euh, Ben allemand war a ñëw dañ ne allemand gëmuñu xale quoi allemand gëmuñu jeunesse bi et tout et ba tax kérok ba may waaj a quitté ah ba mu yëgee na may quitté yaay dafa ñëw ba foofu ci centre bi expliquer ma ne man de lii laa et tout di wax également relation bi mu am ak Trent Alexander Arnold Trent Alexander Arnold nak nee mo ma munta wax xool ki nga xam donc club ci bët né ko au revoir parce que nee na loolu du forum pendant ce temps ki nga xam donc Pep Guardiola dafa bëgg nangu ben cadre bu am importance du côté du Real Madrid muy ki nga xamné nak gaay yi kenn dootu ko présenter ndax bu ñu wax Real sur le plan physique sur le plan également athlétique moom la Puntos la légende Puntos nga xam ne nag ñu bëri nang dañ koy dañ koy dégg c'est lui qui est derrière hein li nga xam donc condition physique bu wa Real am et tout hein. état physique bi ñu am moom la Puntos dal fi ni wa Manchester City dañu bëgg def lépp pour dal di koy récupérer yobuko ko du côté donc de City mu jógee Real Madrid loolu daal fi ni ne la ñu nekk di def ay tractations gars yi di ma information ñen bëggoon jox c'est toujours un plaisir de vous servir wooy leen like wooy leen abonné on avance ensemble dans la magie de Baba Show et les Sport TV bu baax ci yéen abonné suñu la jaa jëf